je je répondrai pas mais damay rectifier tout, parce que dama jàpp ne. Mhm. béy am na fu mu fàtte lu bëree mhm. Ousmane Sonko défier la justice. Ousmane Sonko mosul traiter les gens d'escrocs. nañu fàttali Ousmane Sonko ci njëlbeen gi biñ ko convoqué de à la gendarmerie fekk mu nekk député en session plénière dafa ne moom dafa am immunité parlementaire de wi quand son marabout est intervenu mu def déclaration au Sénégalais ne léegi dafay dem wuyu ji dafa woon nit ñi mum moom dafa am kilifa. depuis lors ça a ñu ko tribunal mu dem la première fois bu mu mon di wuyu ji lañ ko gàttandu fii Stèle Mermoz ñu jàpp ko yóbbu ko euh, caserne Diallo. Mm-hmm. n'est-ce pas chargé ko ci affaire Mbaye Mbaye Niang bi mom dafa né Mame Mbaye Niang daf koy porter plainte contre pour diffamation parquet bi jog porter ko plainte pour diffamation et faux et usage de faux lolou mooy quoi qu'il en soit yo do ci génn bo indé firndé ñu top la faux et usage de faux bo indul firndé ñu ne euh, euh, diffamation mu né malgré tout day dem wuy ji mu dem wuy ji ñu dakh procès bi muy ñibi ñu fekk ko fu mu nekk ci biir otom toj avec tous les risques wàccee ko par force dugal ko ci seen fourgon bi yóbbu ko këram. oui loo loolu loolu ñu nangul la ko mais chaque sortie wala chaque procès bu mu war a conférence de presse boo xamante ne souvent aussi euh, li nga xam ne mooy doxalinu justice da koy décrier. doxalinu justice ban. magistrat yi. non il s'adresse à des personnes c'est pas l'institution qu'il attaque. Il s'adresse à des personnes. Parce que, Fadou, moi, je suis enseignant, il mhm. tu journaliste, lui, il est un agent de la santé. une corporation, il y a des gens qui sont dignes et bons, il mhm. y a des brebis galeuses. Mais moi, je après ça bu mu Je du Je lañ ko euh, par force je suis là. produit Je si on ne protège pas mes droits, si on ne protège pas mes droits, je ne vais plus aller répondre à la justice. Ce mu bëggoon garantie la woon ñu protéger ses droits waxul sax un procès juste équitable mais au moins si sama ne bakkan pas dem wuyu ji me ma demee question yi bu en toute sécurité chez moi mais ce bu amul je réponds pas à la justice. Mm-hmm. donc il n'a jamais défié la justice. c'est la justice qui devait prendre les dispositions parce que mon mot est convoqué garantir que sa sécurité à l'aller, pendant le procès et au retour du procès. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas été fait. Donc, il n'est pas allé dans ce sens-là, mais il n'a pas, il n'a jamais défié la justice. Or, il avait les moyens de défier la justice. Il était mis en instruction. Biñ ko fait instruction, japp lepp lo xamné fait tukki la. ñu ne ko légui mëno génn ci réew mi bi euh, ki bi génnee bi euh, instruction bi jéxé dañ ko délo passeport am. ñu ko passeport lolu jay jaay la donc bref c'est ça que je vais dire Vous euh, savez, leneen li mu bi cour suprême joxe dogal casser Kouji Ziguinchor bi le ko au niveau du tribunal de grande instance hors classe de Dakar l'avocat avocat Ousmane Sonko Dougal Dougal rabat d'arrêt mais bu ñu est un état Dougal pour pourvoi en cassation. oui c'est ça. mais xam le juge Ziguinchor le mhm. mot, Bo attee nit te teewul am na loo xam ko war def lolu bu matul fay considérer ne la condamnation n'est pas complète manam yo atte nga Ousmane Sonko nga ne bi koy atte moom teewul te atte ko don topé juge bi nénal defu ci dara jour bobu comme dans leur chapeau ñu génné corruption de la jeunesse parce qu'il faut le condamner par contumace ñu condamné ko par contumace juge bi ne bu ma sukkandikoo ci code de procédure civile article 822 ak 823 li ñu wax condamnation bi matalu ko ne serait-ce que sur les publicités les formalités de publicité loolu comme amul mënoo condamné nit yëgaloo askanu Sénégal ak fépp foo xam ne nit ñi war nañ ko mën a gis affichage bi loolu boo ko deful mënoo ci gaawantu génnee nit des listes électorales moo mu annulé ko mais mu sukkandiku ci article 822 et 823 du code de procédure civile ñom ñu def voir en cassation décision de justice ce n'est pas c'est immédiatement applicable même boudé après dañ koy casser retirer wat Ousmane Sonko des listes électorales dañ ko wara appliquer ils l'ont pas fait n'est-ce pas légui si euh, bu ñu le cour suprême lan la cour suprême wax waxul ne le fait que nous ñu les mesures de radiation de du lu mu joxoñ argument yu renvoyer euh, dossier au niveau du tribunal de grande instance hors classe de Dakar ne ko na wuti argument dans le code électoral Si démé dans le code électoral dañu viser article L40 ak L41 surtout ci article L41 dañu ne bo génné né ci liste électorale d'abord da ngay wara am instrumentum bi manam acte buy woné ne diw da ko génné liste électorale nga motiver ko nan li ak lii laa moo ma guenné ko ci liste bi jox ko boromam mu tey ci loxo mu jox la firnde ne jot na lolou bu amul waro ko guenné ci liste bi or ñom pendant 4 heures sen avocat yi digënté signification ak notification lañu tourner sen débat yépp mais bu ci munta don ils n'ont pas prouvé que Ousmane Sonko jot na signification bi wala jot na notification bi motax nak comme ñom fofu lañu bëgg sukkandiku pour né légui dañu commencé compter jours yi. Mhm. bu fekkee ne ëpp na cinq jours té Ousmane Sonko dugalu recours donc bu boobaa dañuy wax ne Ousmane Sonko est forclos juge bi ne leen comme firnde yoyu nekkuñu fi man dama japp né forclusion bi ngeen di wax noonu recours bi ngeen dugal pour forclusion dama koy rejeter donc il est dans les délais pour déposer son recours té comme li ngeen def amul notification jotul notification indi leen ben firnde né moi, je na ne dañ ko ci liste bu damay annuler purement et simplement la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales teg ci dafay ordonner Ousmane Sonko ñu inscrire sur les listes électorales mais tey ji wax ji je crois que par respect pour les Sénégalais je crois que par respect pour les Sénégalais deux agents judiciaire de l'état ne dafay def pourvoi en cassation. Il ko y' ah, ah, a un communiqué. signé par un certain nombre d'avocats qui sont des adversaires de Ousmane Sonko. des avocats de l'État. c'est des adversaires de Ousmane Sonko c'est pas tout le toute l'équipe. ah oui. mais ni fa Il y' a des candidats à l'élection présidentielle qui nañ ne bu Ousmane Sonko taxawee ñoom du ñu am dara xam ko c'est des adversaires de Ousmane Sonko ñoom ñëpp c'est des politiciens. comme yow. je suis politicien. ah oui moo tax yàq nañ la léegi quoi. non motax tax l'agent judiciaire de l'État, est ce que signé na lui qui s'était pourvu en cassation Bion, c'est des avocats adversaires de Ousmane Sonko qui l'ont dit. Quoi mais c'est le collectif des avocats de l'État. non mais la dernière fois ce n'est pas le collectif qui a intenté un pourvoi en cassation. oui l'agent judiciaire de l'État. c'est lui qui représente l'État. Ils ils sont que des auxiliaires de l'agent judiciaire de l'État. Nous respectons les sénégalais Dan une première fois nous avons quatre appuis bi et jël bi ñu ñëwaat daanaat leen mu eh, eh, jël bu set wecc mais quand xam nga dafa am loo xam ne euh, nit dangay nangu dogalu yàlla xam nga dogalu yàlla lan la dañoo ñëw jël fiche de parrainage bi violer la loi électorale violer la loi électorale parce que dañ jël fiche de parrainage bu nekk ñu def ci numéro fan nañ ko waxee ci code électoral ne kuy jël fiche de parrainage da nga am numéro da a am numéro dafa am. Oui, mais Lolo aussi c'est pas c'est pas c'est pas mal pour les candidats yi nga xam ne ñoom lañ ko ci parce que nous, nañu ne dina mën qui tax kenn ku ci nekk ñu ràññee la aussi. mais nañ ko bind ci loi bi. non Lolo, quelle loi du wax ci Lolo Lolo, c'est des arrêtés c'est des trucs loi dañ koy organiser. mais arrêté loi là jante non arrêté de loi. c'est règle c'est règlement. mais texte là non mais mais. mais bàyyil bàyyil après bougez les paroles, nga tontu. ah non c'est court d'une manière courte. Bougez les paroles, nga tontu. allez-y. dama ne. Hmm. lu <laughs> est-ce que amna texte bu ne légui kuy jëlati fiche da ngay am numéro bo amul numéro do mën def parrainage xam nga c'est une violation de la loi là la wax parce que loi bi dafa ne ñëpp dañuy jot fiche de parrainage dem wuti parrainage n'est-ce pas biñu défé lolu lén rek lañ ci doon viser moy buñu jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage parce que depuis plus de trois ans ñongi top topp yoon justice pour mën a Ousmane Sonko mënuñu ko téye ba légui avec Khalifa Sall, ça n'a pas pris autant de temps. Avec Karim Ward, ça n'a pas pris autant de temps. Donc l'INI, non seulement le Mungiji, mais il Yalla Dafa Andak Ousmane Sonko. Ils n'ont pas pu avoir raison de Ousmane Sonko par la justice. Légi, il faut changer de fusil d'épaule J'ai ko ci administration j'ai doole administration moo je le verdict bi lu muy je ministre de la justice nga je suis le ministre de la justice donc administration lañ jël parce comme xamuñu Ousmane Sonko bu consulter dossier bi yobu conseil constitutionnel lan Nous fay ñu bu mu am sax dossier bu consulter bala muy day dem conseil constitutionnel ñu jox fiche de parrainage Vous mu di de parrainage ñu ne ko duñ la ko jox terminer. Mhm. oui mu da ma mu notification euh, yoon jox ko dégg ñu war ko jox fils de parrainage ñu lank ne duñ ko jox fiche de parrainage parce que dañu yóbbu mbir mi cour suprême ñu jóge foofu ñu ne léegi Sénat na ci wax Sénat ne ko jox ko de parrainage ñu tas Sénat ñu ne dañuy dem cour suprême bu ñu cour suprême weddiwul juge Sabassy fay dafa ne argument yu mu utiliser moo néew doole na utiliser argument yu gën a dëgër pour que mu mën a justifier son verdict léegi verdict bi génn na L'Utah, nous encore dañu def pourvoi en cassation di sonal nit ñi ñun dañoo japp ne nous Ousmane Sonko leer na ba noppi lu mu leeree mooy Ousmane Sonko il est électeur et éligible bu leen neexee ñu dugal ko ci liste électorale yi bu leen neexee ñu jox ko fiche de parrainage bi waaye leneen li may wax li may naan euh, loxo ngi ci ñoo def dialogue ne léegi ku ci am 13 députés mun nañ la parrainer. donc donc foofu dinañ fa ñëw su fekkee. Ousmane Sonko yàlla def na am na treize députés. alors dinañu ñëwaat dinañu ñëwaat. te comme soxlawul mu am fiche de parrainage boo xam ne dafa am numéro. mun na bind 13 députés bu leen neex bu ko neexee mu boole ci les 13 euh, cartes d' identité numérisées mu yóbbu ko pour wane ni ñii ñoo ba parrainer alors alors fay na déjà caution 30 millions. dinañ ñëwaat lu ko dese dinañ ñëwaat ci parrainage boobu. dina nekk candidat bu leen neexee ñu bindaat ko bu